ndeysaan Morikini Malal Ñaani ndeysaan combat bu nar a gaaw ñoom ñaari mbër yi léetoo bar léetoo bi bar na ay mbëru mbapat lañ gëm naa bu jàppante mu jeex ndeysaan Morikini Malal Ñaani ndeysaan Morikini Malal Ñaani Malal Ñaani Morikini ndeysaan ma leen ñaani déclenché na mais taxawaat na ma leen ñoo ngi doorante ñoom la ilaha illallah waaw oh maanaam ñaani Mor Jigini ndeysaan Mor Jigini maanaam ñaani jugaat nañ ndeysaan ñoo ngay bëre ñoom ñaari mbëri la ilaha ala acco amul bàyyi ñoom ñaar loolu la ñuy bëree ndeysaan arbitre ba atte na ardo am na ndeysaan fan ci diggante malal ñaani ak ki nga xamante ne mooy Mor Yekini ñoo koy leetoo di ko benn bennal waaye waaye ki nga xamante ne mooy malal ñaani sànq def nañu neex ñëwaat dem rek lay gis. waaye ñoom ñaar mbër yi. ay ndaanaan. ay ndaanaan lañ. ma leen ñaani yor noonu. laa ilaaha illallaah. ma leen ñaani ma leen ñaani ma leen ñaani moo rikini. ma leen ñaani moo rikini. ma leen ñaani moo rikini. ma leen ñaani moo rikini. oh xoo bëri nañ. oh eh. eh Morigini Morigini ndeysaan oxo oh, ñoo ngay bëree Morigini moo ngay bëgg imposé wala waaye ki nga xamante ne Malam Niani bañ na moo ngay dóor ndeysaan Morigini loo nar ñoo ngay moo koy roxos moo ngay dóor Morikini Morikini ngi jàpp dara xewagul ma ngay seen supporters yi toogatuñu ndeysaan ñaari xale malal ñaani Mor Yikini bëri nañ lu neex doorante nañ ñoom ñaari mbër yi ku si nekk xam nga lu sa morom di saf. waaw neex na ku yooyu ku na. ku si nekk xam nga kër nee na jaay fu mu féetee. man man yooyu ku bëgg naa ko. ndeysaan mooy laa xëy na laa moo rigi ni na ko doole yemul. oh lii lan la moo rigi waay. ndeysaan ma lay ñaani jugal